Bonjour chers auditeurs, l'hôpital régional de Saint-Louis a annoncé la suspension de son programme opératoire en raison d'un déficit de produits anesthésiques, indique l'agence de presse sénégalaise. Les commandes auprès des fournisseurs sont restées vaines selon le communiqué. L'hôpital régional explique qu'en raison de cette situation, il est obligé de suspendre provisoirement le programme opératoire réglé pour pouvoir assurer correctement les urgences vitales. le service de communication de la structure rapide à ces tensions qui est nationale. Journée de porte ouverte de l'Union départementale des mutuelles de santé de Kaolack, c'est pour permettre à la population de connaître leurs nouveaux locaux situés au marché central de Kaolack, derrière la clinique Diarama, mais aussi sensibiliser les acteurs du secteur informel sur l'utilité d'adhérer aux mutuelles de santé. Écoutons Ibrahima Diallo, le président du conseil d'administration de l'Union départementale des mutuelles de santé de Kaolack. Il est au micro Ndiaye. pour au moins sensibiliser les personnes. D'abord, ils doivent connaître les sièges de l'Union départementale des mutuelles de santé. Aussi, nous sommes aussi dans un milieu du secteur informel et rural aussi. On va profiter de l'occasion aussi pour les sensibiliser, pour qu'ils adhèrent davantage au niveau des mutuelles de santé du département de Kayo. Oui, dans les mutuelles, vous savez que c'est un, une politique de l'État Donc depuis 2013, on a instauré la couverture maladie universelle. L'axe le plus important, c'est l'adhésion aux mutuelles de santé. Dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins une mutuelle de santé. Dans les grandes communes comme Rufisque, Dakar, on peut trouver une multitude de mutuelles de santé, mais le principe est qu'une mutuelle dans une commune de santé. Donc vous savez qu'on a fait un diagnostic, et euh, on a trouvé que presque à 20% de la population avait une couverture maladie à travers l'imputation budgétaire, mais aussi à travers du secteur privé, les IPM. Et donc, il reste maintenant le secteur informel en rural. Donc, les paysans, les éleveurs, les commerçants, comment on va faire pour assurer leur couverture maladie Cette initiative que le gouvernement a prise pour vraiment faire adhérer les personnes au mutuelles de vie. Donc dans sa commune, il y a une mutuelle de santé où la personne doit adhérer. Une adhésion de francs et une parce que après on a jugé que si la personne verse une cotisation de 7000 francs durant 12 mois dans une mutuelle de santé, on peut prendre cette personne à hauteur de 80% au niveau des postes de santé, des centres de santé et de l'hôpital donc, et des EPS, mais aussi à 50% au niveau des, des officines. Donc la personne va cotiser 3500 au niveau de la mutuelle Et cette contrepartie de cotisation, l'État va verser les autres 3500 pour compléter les 7000. Et c'est 3500 que l'État va donner sous forme de subvention ou bien de contrepartie de cotisation, c'est cette somme-là qui est logée au niveau de cette structure qu'on appelle union départementale pour permettre à la population, après avoir fréquenté les postes de santé et les centres de santé, maintenant, quand la personne est référée au niveau de l'hôpital et la ou bien au niveau des cliniques, c'est maintenant l'union départementale qui continue à l'accompagner pour vraiment l'assister. C'est merci de nous avoir suivis. daldi nag jàmm hôpital régional bu Saint-Louis yëgle na ne dina dakkal bépp programme opératoire ndax ñàkk produit anesthésique bu ñu sukkandikoo ci agence de presse sénégalaise commande yi nga xam ne def nañ ko ci seen ay fournisseur taxul ñu jële cib saafara bu ñu sukkandikoo ba tey ci ab communiqué hôpital bi nee na looloo tax mu dakkal ci jamono ji bépp programme opératoire réglé service communication bu hôpital bi nag mu ngi xamle ne ñu ngi jël bépp matuwaay ngir rek mbir yi delluwaat ñëwaat ci ni mu waree. union départementale de mutuel de santé bu Kaolack moo amal journée porte ouverte ngir xamal askan wa seen makan bu bees bi nga xam ne euh, ñu ngi ko amal ca ginnaaw clinique jarama waaye it sensibiliser acteurs yi nekk ci secteur informel bi ci njëriñ mi am ci adhéré ci mutuelle de santé yi Ibrahima Diallo di président bu conseil d'administration bu union départementale des mutuel de santé bu Kaolack la ñuy teewlu ci micro bi Rama donc Euh, historique boo xam ne dañ ko jiite te nit ñi ñoom ñoo koy fréquenté fi nga xam ne nag nit ñi ñoo fay ñëw boo fa toxoo bees il faut nga def sensibilisation nit ñi mën a ñëw d'abord ñu xam siège bi nga nekk beneen bi mooy nga sensibiliser ña fa fekk koo xam ne xamutoon ne au moins lii nii lay doxee nga mën ko sensibiliser moo tax ñu organiser une journée porte ouverte donc pour au moins parce que nekkuñ fi ñu ngi wax ñoo nekkoon boori Ecobank te aussi sensibiliser waale ñi nga xam ne ñii fi nekk parce que aussi boo xoolee fi secteur informel et rural bi moo fi gën a bari donc ñu ñoo gën a tax ñu jóg waaw boo buggee bokk ci mutuelle bi santé bi parce que d'abord mutuelle de santé commune boo dem am na mutuelle de santé il y de santé au niveau du Sénégal nit ki nag ca commune ba nga dëkk foofu ngay dem ko adhéré foofu ci mutuelle ba léegi nag cotisation bi boo adhéré 1000 francs ba pare dangay ngay juróom-ñaari téeméer cotiser sa njaboot donc au moins carnet bi dana jël ñeenti personne ñeenti nit bu fukki nit ak juróom-ñett yaa xam fi sa doole yem donc boo cotisé juróom-ñaari téeméer ci mutuelle de santé bi cotisé sa njaboot état bi dalay yokk cotisé yeneen juróom-ñaari téeméer muy 7000 juróom-ñaari téeméer yooyu nga xam ne état bi mu ngi koy joxe nag juróom-ñaari téeméer moom mooy ñëw union départementale bi nga xam ne moom laa lañ jiite nii ma nekk président conseil d' administration bi pour que nit ki bu fajoo ci poste de santé ba mu nekk wala centre santé ba mu dëkk bu fa fajoo te faj bi wax dëgg yàlla du wax sax ñoo ñu la yem mais peut-être plateau technique bi fa la yem buñ ko référé hôpital ñun ñu mën ko accompagner avec contrepartie bi nga xam ne nguur gi moo ko koy joxeel fii au niveau de l'union départementale sous forme de subvention nit ki bu cotisé de 1er janvier au 31 décembre 31 décembre bu jotee dañu arrêté ñaata nit ñoo cotisé 3500 ñu multiplier ko par 3500 donc loolu dossier yooyu la ñu yónnee état bi mu joxe ko donc parce que aussi il faut ñu xam d'abord année bi ñaata nit ñoo cotisé nga defar dossier bi mutuelle Abdoulaye Boutier indi ñu compiler 14 communes la moo nekk niveau département Kaolack 14 mutuelles de santé donc ñu compiler dossier yëpp envoyé niveau donc agence de la couverture maladie universelle pour ñu mën a libérer euh, fonds yooyu subventions yi pour yi nga xam ne ñooy accompagner malade au niveau de l'hôpital et des cliniques aussi ordonnance yi nga xam ne jóge na ci hôpital bi war ko jënd ci pharmacie bi à pour cent ci pharmacie privée yi mais 80 pour mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm